bare ci jamono maa la wax lii bu doon dañu bàyyi yàlla nit ñi rek mais tey mën nga gis Aïcha yàlla sàkk ko tàkkuwu la am lu mu ko defal tàkkuwu la jur mm-hmm. naa defal na la mais ku iñaan day xool ki ki ki ci des ba du gis li ko yàlla defal mm-hmm. mais ci yem danga naan nëgal ma jóg am na ñoo xam ne mënuñoo am añ bu baax mënuñoo am reer bu baax xam nga lu bu doon tey da ngay ñëw li sëriñ bi defal ma lu ma aar baax na waaye yàqal ma diw lañ lay wax rayal ma diw defal ma ko nii defal ma ko ne te li ci gën a doy waar mooy hmm. say mbokk dañ ciy bokk de say mbokk dañ ciy bokk da dañu toll foom ni man dama ni paaka bi lay rey boo teeyul dañ koy daas ba mu ñaw jox la ko loxoog loxo <laughs> ndax dangay bokk ak nit benn deret wallaahi lazim nit day jël dara jox la ko loo ragal doo ko jël. dëgg nga jël ko mun la utiliser ko ndeke danger la. ndekete lu lay lor nga yow. ndeke danger la Aïcha pour man. dama foogoon àddina lu baax rek moo am. man loolu laa foogoon gis nga temps yi may létt ñu may fay su ma ñëwee sa kër di la létt su ma fa añ fekkee ma añ ndax la dama naan rek. kër yëpp benn lañ. tranquillement <laughs> soo attaayaa jox ma ma naan. Ah. xel bu daal comme jamono bi ñu toll nii. Mm. denc bu ñaaw moo gën di jiñ sawaay déet bu ma nammee mbaxal toggantu ko yaa ngi may ree Aïcha déet. damaa xam ne am nga tax may parce que. xam nga man bu ma tricher nag. xam nga xam nga xam nga waxtaan. ngay bàyyi xel nit ki li muy wax dafa am solo. Mm-hmm. li ma la gisee ngay wax. je sais que tu as vécu. duñ parce que playlist nekkul émission boo. xam ni te ko sax. nekkul play nekkul émission boo xamante ni ñuy dugg ci vie privée nit ki duggee sax nag Aïcha damay ragal may mun a woote ne la émission yi doon am ci année bi yëpp jën nga je sais que je sais que tu as vécu xam naa ne dund nga danga xam dama xam tout le temps booy wax yaa ngi moytu parce que bëggoo ci wax et man aussi bëgguma vraiment jaru ko xam nga bu la yàlla dimbalee mhm. yàlla dimbali la mënta pensé nga ne foo xam ni yow Aïcha tey boo yëgee ni kii fee mu tëju mi ngi ci danger ñu waxante dëgg doo ko seetaan yow yàlla rek yaa ñi lay defa ko xam mm. nga toog ni tekk boole woo dara ko wax ba yàlla dimbali na nga génnaat fa dangay xam la yàlla defal. sant nga man alhamdulilah rabbil alamina rek lay wax. waaw léegi mais nag àddina àddina am na xeex. quand même parce que <laughs> am na xeex ay sa barke Seydina Muhammad. dëgg maa dem gëm naa ni. da tëj sa kër boo génn xam nga da nga naa man dama naa waaw man lu tax duñ ma fàtte ndeke ñu ci yow à pour cent léegi mhm. mais sant yàlla léegi nag sant yàlla euh, comme que ñëwaat nga mhm. avec force et détermination dama bëgg nga wax ak producteurs yi lay seetaan mhm. parce que tey le dimanche quinze heures gars yëpp ngi toog seen kër yi seetaan waxal ak producteurs yi ñu ñëw vers yow wala nga dem vers ñoom tàmbaliwaat liggéey bi parce que voix bi mu ngi fi hmm? envie de chanter bi surtout mu ngi fi waxal ak gars yi soxla nga quand am benn producteur exécutif hmm. boo xamante ni dafay nekk sa wet di la jàppale ah hmm. n'est-ce ko amee jël bu ñu ko amee jël bu ko amul na ah, boole suñu déem ak suñu daqaar defal suñu def liñ daan jaf rek loolu la de parce que nag ndax yàlla mooy boole sa teraanga. ak sa nag liggéey yépp boo xoolee. liggéey boo gis. lu mën a doon ci àddina yàlla dafa lëkkale sa nattu ak sa teraanga doonte yow sentir nga ni amoo lu la naqari ah, alal ju bari sax nattu la bu ànd ak teraanga ndax sa noflaay du bari nañ la bàyyi xel nañ la xool aar nag xam nga loo xam ne bu jëkk de dañ daan am producteur léegi nag bariwul wala su bari gisuñu ko ndax producteur tey mënoon na xool benn talent gisatu ko. dëgg la na ko dégg. Mhm. mu daan ne waa kii xaaral ma dem xool ci lu mu ne. ndax waykat la wala nii wala nii àddina nag day dox. waaye li am solo mooy. Mm. ah bu ñu fàtte suñu bopp bu ñu fowee suñu bopp rek. boo newee bu ñu fowee suñu bopp. ànd ak tabaaraka wa taala. Hmm? boo newee bu ñu fowee suñu bopp. fonk sa bopp fonkal sa bopp xamoo ni. lu xew nga dem ca sax fuñ tourné gis la fa te waroo faa ñëw sax ci fowe sa bopp la bopp nit dangay xam yow yaay kan dangay xam du lu ñu forcé de suñu nature la xam sa valeur doo ñu gis foo ñu war te gis doo ñu dégg foo ñu war te dégg xa man de ku ma sosal ndax nag jamono bi ñu toll wax dëgg yàlla léegi léeg nga gis ñu ni maara ba nee na bind ko fen man waxuma kenn de dama toog rek noppi. jàpp si ni ma defoon laay def su ma juumul bu album bi génneeg léegi bii mooy sama première sortie. Mhm. waaw expérience nag may nañu ñu man maa ngi muñ loo xam ne daaw ko muñ. lu mel ni. comme par exemple nga jékki-jékki rek afficher sa titre ni Maada Ba a dit ce qu'elle te waxuma ko je t'appelle ni la lu tax nga wax ko aska maa ko wax ñi xamul nag. ñoom dañuy daw déglu ji ni li maada ba wax mais ñun li ñu expérience may benn journaliste dafa ma ne maada même boo defee ñun interview may ñu titre bi ñu def loo xam ne daf ñuy pousser ci jaay xam nga kooku déggu na mm-hmm. say wax duñ ci soppi dara duñ ci changer dara mais tiitre bi li ñu sentir lañ ciy def mi ngi fi. sama doom bi jàngal papi dégg naa ni màgg na ba am jabar. macha allah waaw waaw. Eh? màgg na. il bi ngay woy papi moom lan moo la lan moo la inspiré woon si si quoi exactement dafa nekkoon doom boo xamante ni dafa amoon yaakaar si moom trop parce que ah, boo koy woy naan ko sama doom bi jàngal soo màggee ndeysaan way bi pour xale yépp te way la boo xam ne pour génération bu juddu la dëgg macha allah parce que man xam nga way wax la da ngay motiver nit ci way tey yow mën ngay def dara wala nga am naqar dégg benn way day am way bi am lu mu la def te alhamdulilahi rabbil alamina way boobu daf ma may ay njaboot daf ma may doom yu may dégg macha allah te musuma leen gis dangay gis ku ne mama wala ñu la mag sax ni way boobu fekkoon ci benn concours daf ñu fekkoon ci lii daf ñu fekkoon ci lii mais daf ñu motiver an sàmbay sàmb yàlla na nee na bul di nangu ku la gërëm xam nga way dafa bari pàcc mais ku ne ak fa muy gis dëgg la way nga ci dégg dëgg dégg ci lu la reeloo dégg ci lu la fayloo fecc loo dégg ci lu la yedd nee na moom bul di nangu ku la gërëm ci alal joo moomul hmm. te man damay dem def sama prestation fu ma tollee gis mu naan ministre bi bul di nangu ku la gërëm ci alal joo nanga baax ci sa alal njàmbaar ci sa doole tey su ma amoon téeméeri at jóge fi ci kàttanu yàlla ak mbaaxam yàlla na yéex papi ni ma ni wayuma pour wax ci moom kese du du du leb même man mi musuma def prêt mais mais mais li wax naan ko papa yow miy jàngal xanaa xooloo li may daj. ndeysaan dëgg la. mais cest c'est très fort c'est très fort. xanaa xooloo li may daj cest à nday ci doom. nga nekk sa néegu sëy. nekk ci jafe-jafe nekk ci àdduna. mais des fois. si yaay sonn rek ñu amal jom man jaboot soo ñëwee ne ma dama sonn man la sëggal ci say doom rek. jëkkër def na ma lii ma ne la sëggal ci say doom ndax ñoo lay fay ëllëg nga gis moo tax Aïcha hmm. am nga doom déedéet si amaguma allah yàlla nañ fi yàlla baay ba nga am ko des nga gis ñi la bañ dëggantaan buñ lay xeex yitte looleen de ci sa njaboot la ñuy jubal <laughs> ci sa njaboot la ñuy jubal léeg-léeg nga gis kër gu tàng yàlla nañ ci yàlla mu muccal njaboot jaboot ba pare nga gis ko ni man de kee ñeewu ma ko boobu du jaab du jàmm te du neen dañ lay xeex njëkk ci sa njaboot bu mënul jot dañuy dem xool dañ lay xeex dama ni la njëkkee ci sa njaboot surtout bu ñu xoolee ni kii yar na doomam doomam deful nii deful nii duggul fii génnul fee macha allah ñu daan ni xaaral waaye nag yàlla man daal benn paa dafa wax loo xam ne ne ma maa dama ne paa ah, mu ne ma léeg-léeg yàlla dogal dogalam nga ni tekk mu ni xaaral ma fajal ko mu ni nga ni bëreet jëli wax mu ni xaaral ma seetaan ko teeg samay loxo te ki ma wax li man mosuma ko gis waaye xam nga téléphone mhm. koo bëgg a waxal di nga wax ak moom moo tax man daa Aïcha hmm. noyyi bu ma noyyi hmm. tudde naa ko alhamdulilahi rabbil alamin macha allah ndegam génn génn nañ ci ci xeex yu bare bare yu méttee métti yu soxor maada xanaa dangaa dund danga dund loo xamante ni c'est lié à des problèmes mystiques man pour man fi ne nii bu fekkee dëgg nga bëgg a dégg tay soo sëqatee nii fiñ toog nii xam nga ma mënuma fen sëqataat boo ma nee maada sama sëqat bi gëm naa yàlla de mais dama lay waxaale scanner la jamono boobu lañ toll. nit ñi ndax bu yàqal la. ah bu la yàqalul it sonal na la. ci yan anam la la sonalee. sonal na la yow <laughs> sonal na la sonal na la. bu la yàqalul it sonal na la mais dañ koy sant yàlla ndax am na ñoom ne biñ leen liggéeyee. xam nañ ni dañ leen a liggéey mais dañ leen koo nettalit fekkatu leen fi waaw dafa am ñoo xam ne Aïcha man yi xeetu soxor ma gis barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ku ma ni woon mbindeef mën na ko ci moroomu mbindeefam ba ci mala doo ko mën dañu toll daal ci jamonoy moytu man daal loolu laa gëm ndax dañ ni denc bu ñaaw a gën di jiir sawaay en tout cas borom borom mbaar bi moo fi nekk. te ñëpp la teg yàlla nag. suñu digganteeg lépp. ay te dañuy jeexal ak projet. ginnaaw bi ñu joxee clip yi. Euh, lan ngay waajal. li may waajal macha allah bari waaye dama bëgg a def ni ma defoon nga xam nga ñi la xeex ba bëggatuñ ku la gis. ay xolal bëggatuñ nga way nañ la ba. <laughs> dama ne yéen ñi seetaan bàyyi leen jàmbur ji bàyyi leen. duggee studio. nan la bàyyi aay na. dama koy nëbb. booy dugg studio danga koy nëbb. barke Xaadimu Rasuul danga yeewu taal télé rek gis ma noonu laay def de. yow léegi da tàttal de. naka jekk nag du ren de du ren de du ren de sax tane na. non. musiciens yi may répété dama leen daan wax bëgguma ku ma yëg. da ngay làkkatu ko la wax lii. xam nga répétition guddi laa daan def ñëpp di nelaw nga luwe fu kenn déggul bu parce que musuma dëkk ci kër répété fa bugguma déranger DJ Noir mi daf ma da doon jekki da lay invité ni la foo toll ma ni ko maa ngi ci projet yàlla na ko yàlla yërëm deux jours après ma indil ko single ni ko mu oh. yàlla baax na waaw ku ñu xam foo jëm doo yegg gis nga way yi wutuñu ko forcé wuñu ko am na luñ ci yàlla dimbalee nag muy kàddu gu ñu mën a lancé lañ ciy wax nag gëm ko di ko dund mu ñuy jariñ véhiculer ko mu jariñ keneen yedd yërëma ko gën bi mën naa sauver ñu bari ñu ne ci xeexu kër mm-hmm. ñoo xam ni seeni mbokk a ngi daas fanaanal xaaruñu lu dul ray leen jël seen kër yi yedd yërëma ko gën bi loolu moo tax ma woy woy bi ñu ngi lay xaar ci tey da ngay am say mbokk nga tabax sa kër. da leen di héberger sax am na ñoom da nga leen di héberger ñuy def lu la ray pour jël kër gi nii laa koy waxee mu leer ba mel ni midi parce que loolu moo xew ci société bi. yàlla baax nga abal nit sa kër mu wut lu la rotee sa kër. tey di nga gis ñoo xam ne ñu ngi tumuranke bu ñu loruloon seen baay ñu ëpp ñu ëpp ñu njariñ ñun mais dañuy xool kala mënoon a jariñ ba pare wut kër. bu dee pour nga suturlu ci ay mbokkam xeex ko faagaagal ko. doy na waar ba pare nag sa njaboot ne ci mbedd mi moo fi xew léegi. te léegi ñi la war a dimbali sa mbokk yi nga xam ne ñoo waroon a ñëw taxaw sa njaboot ñoo lay def loolu looloo xew fépp loolu moo xew ay Aïcha man naka jekk sama nature la de man de samay projet waxatuma ko kenn. da laax laaxatul ba mu neex. boo toogee ba mu ñor nga dal na ñoom ne bu doon bu doon seen sago partagé bu doon seen sago hmm. dootuma wayat ci àddina hmm. waaw bu doon seen sago dootoo dootoo feeñ fenn dootoo way fenn waaye nag yàlla ndax man sa li ma yëkkati ba ma toog jugaat yàlla rek moo ko xam yàlla baax na macha allah en tout cas kontaan nañu bu baax a baax ci waxtaan bi et surtout ni nga ubbee ko partagé ak ñun du baree bari ah Ah, di la ñaanal rek yàlla na yàlla gën a wéral baat bi ah, yàlla ah, mayaat la ci way lu kal sa njort hmm, ndax gis nañ li nga xamante ni proposé nga ñu ko ñu ngi lay xaar ci yeneen projet incha allah 7TV sa kër la lu génn nag andil ñu ñu teg ko exclusivité <laughs> incha allah amul benn alors ñu bàyyi la nga tàggatoo kontaan naa Aïcha vraiment euh, li nga waxee ni yëpp li ci rafet ginnaaw yàlla yow la rek parce que la dalale rek nga mën a dale ci kër gan du yeewi bëy te damaa ñëw vraiment nga wan ma feel wan wan ma mbokk te loolu mooy àddina mhm. bu ko defee nit ki day daal di ne mel ni ni ngi nekk këram am na ñoom ne tañ lañ lay invité mhm. noonu làqatu ci ginnaaw te man ni ma yaroo laa pànke pànk mu yaru la ma yàlla def du ma tooñ da ngay gis ñu wala ba nga ñëw xam ne l'artiste est un produit à vendre ñu wala ci attaque xamuñu la duñ la xam mais day am ku ne seen ginnaaw ni ko su maada ba ñëwee daal waxal ko gàttaaw gàttaay bu rëy bi lañ yaakaar ne daal moo ne ci yow boo bu ko defee nag nga janoog ñoom mais yow tu n'es pas comme ça defoo ko ndax léegi am nañ fu lugu toll ni man daal dama naan fu may dem di fa jëlee xuloo wala werante du ma fa dem. ndax yàlla teral na ma ba pare. macha allah macha allah li ma yàlla defal. man xam naa ko. yàlla na yokk merci beaucoup. fu may dem di jokk mbokk dinaa fa dem. fu ma séentu fitna nag ma toog sama kër yor sama kurus ne yàlla yi ndax yàlla mbaaxam gi dara di ko. macha allah kontaan nañu bu baax sunu xol sedd na en tout cas ñu ngi lay meilleur euh, pour la suite di la jaajëfal bu baax a baax remercier Issa Kébé ak Lamine bi nga xamante ni mooy ne ci montage bi saa su ne ñu jaajëfal aussi waa hôtel Colonia euh, bu baax a baax ñoom ay Aïcha ñoom monsieur Camara ñoom ñu fi nekk ñëpp ñu leen di jaajëfal merci Babacar Allô Paris pour la robe elle est juste magnifique jaajëfal aussi ki nga xamante ni moo di Jantal Mara pour la perruque jox leen dig daje ba dimanche prochain ñu indilaat leen beneen invité c'est que moom waxtaan ba am merci beaucoup merci ma chérie <laughs>